mbokki internet yi dal leen ak jàmm ñu waxati naka ci coup d'état bi am ci diwaanu uh, Guinée uh, uh, Conakry ginnaaw benn sommet extraordinaire boo xam ne CEDEAO daal dinañ koy naka def ñoom ñi la ñu ci retenir mooy ne nag six mois képp dañu daal di jox nag junte bi maanaam ñi occasionné coup d'état bi ngir ñu amal ay élection foofee nag ci diwaanu Guinée boobu le sommet extraordinaire ci conférence des chefs d'état de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest daanaka nag quinze septembre bi lañ ko daal dëgmal muy barki démb lañ ko amal nag ca ak diwaanu Ghana a ngeen daal di nag wax ci évolution bu situation bu Mali ak ca Guinée ci nag seen waxtaan we ñu génn mooy ne conférence des chefs d'État daal di exiger ngir ab delloo si am nag ci ordre constitutionnel euh, bu Guinée benn comité national de rassemblement et de développement di CNRD nga xamante ni colonel Mamadi Doumbouya yaa moo ko daal di nag jiite euh, nekk nag organisation boo xamante ni nag euh, ñoom ñu nga xam ne ñoo daal di fare nak ci sommet extraordinaire de la conférence des chefs la communauté bees di nag euh, dëkk yi nga xamante ni euh, dañoo daal di nag ëmb CEDEAO ñoom ñoo daal di waxtaan si seen biir ñoom entre euh, président daal di nag xamle ni nag ne dañoo exiger ki nga xam ne mooy colonel Mamadi Doumbouya ak ñi mu jiite ñëpp ci seen comité national de rassemblement et de développement boobu la ñu daal di organisé organiser ci nu mu gën a gaawee nag élection yi sans nag délai bi daal di nag yàgg ñoom ñi exiger kon nag ci délai wu mois képp élection présidentielle ak législative yoo xamante bu république euh, bu euh, Guinée tax nag bu CEDEAO ne ñu nag ñoom daal nañu proposé ab accompagnement boo xamante ni euh, bu gaaw lay doon ci crise ak préparation élection yi li ak interdiction itam membre yi nga xam ne ñoo faree nag ca CNRD ñu daal di nekk candidat nag ci élection présidentielle ba ñoom waa CEDEAO na ci lu ñu tënk ba noppi di ko exiger Mamadou Doumbouya moo ne ñëpp ñu bokk nag ci boobule coup nekk ci nag ñoo xam ne dañ ci daal di bokk taq ci rip nag kenn du doon membre jëm ci élection présidentielle yi ñu daal di jëm ci benn communiqué nag la ñu ko daal di nag dëxañ ñoom ñi ci wàllu diwaanu Mali sax ñun ñoom conférence bi daal di nag wax ne daanaka nag yéexaay bi nga xamante ne moo yéex ci préparation élection yi daanaka dafa préoccupante ba noppi nag ñoom conférence euh, chef d'état de la CEDEAO daal di wax ni nag demande du respect euh, bu calendrier de la transition nag daanaka moo war a yóbbu ci euh, tenue effective bu élection yi ko négocier ci février 2022 lañ ko daal di nag wax mu mel ni moom colonel Mamadou a mi nga xamante ni sax daanaka ñu bëri dañoo jàpp ne fu mu dafa mel ni dafa commencé nag di xiif pouvoir xiif pouvoir nag moo ko daal di nag jaral ba fu mu toll ni nag mu jël préfecture yi ñi nga xam mooy sous préfecture yi ak fépp foo xam ne administration bi dafa daal nekk jël ay militaire placé leen fa mu mel ni moom itam mi ngi waajal ab toog boo xamante ni nag fas yéene wu sax daal di nag jóg wala boog mu dem a dem seeti leneen lu ni mel moo daal di waral